monde paie des impôts. si y a tellement de choses à dire alors si yooyu. Aliou Sow nee ko mbasa mbasa aujourd'hui nee ko fay impôt. aujourd'hui ak dajale xaalis bi bu ñu ko defee am budget li nga wax leer na. aujourd'hui mu ñëw mu mën avancer. aujourd'hui c'est le sénégalais qui a qui a parlé mais pas le français. si je suis en France. il a parlé du régime fiscal français. à 100 pour ah, cent avec toi tey. pour une fois Aliou Sow li nga fi wax nii. c'est parce que sujet bi la tax. mooy dimbali réew non non non c'est-à-dire non buñ fi duggaat nag. buñ gis nga nag sujet bi la. mën nga attaaya rek ngay fuuralee tànk. eh ah. mën nga attaaya rek nga bëgg a fuuralee tànk. non je suis en phase. non parce que tu as parfaitement raison. réew réew lenn mënu ko dimbali lu dul. mécanisme boo xamante ni. daf ñuy dimbale ba nga xamante ni lu toll ni talfatul ay ni du ñu rëcc ci suñuy lempo loolu moom je suis tout à fait d'accord avec il faut la culture fiscale waaw am yaa dee yi liggéey nañ ci mhm. par rapport ak euh, par rapport ak euh, la communication de, euh, du, du premier ministre du PM mhm. il a li ñuy woowee d'une pierre d'un coup il est sorti pour communiquer sur un événement qui doit le premier er juin il est très bien de profiter waxaale dalal laale xelu sénégalais yi donte man kilifa peut-être mi nga xamante ni yu ci bëree bëree bëri bëri gis naa surtout côté agriculture bi nga xamante ni tey jii nii foofu nga daanalee parce que un pays li koy révolutionner révolutionner c'est une bonne agriculture fexe ba nga xamante ni dañuy bay noor di bay nawet di lekk di bay li ñuy dundee. te mm. loolu gars yi ñu ngi ci ci avancer boo xamante ni mais mais maara day taali te gis naa ni Sénégalais yëpp def nañ constat bi maintenant am na ay coow man dañ may interpeller naa ma wëy gars yi di agité wu di tëb di indi divertissement dugg na fii dañ leen waroon corriger sàcc yi ñuy jàpp teel leen a jàpp parce que ñoom ñooy fàtt may leen déedéet bés bu ko régime bii defee dinañ jàkkaarloo ak man parce que yëf yi day jaar ci yoon. lépp dafa am temps wam Pa Moussa laa di lu tax bëreet Macky sàll ne ciix Karim Wade yow moom yaa mun a nekk moom prochain adversaire bi may sonal dama lay liquider ñeneen ñi am nañ base seeni dëkk lan la leen def waxu leen delloo leen waxu leen dara kaay leen dugg ci biir parti bi wala ci biir coalition bi ma récupérer seen base yi wala ma ñaf leen ci kaso bi donc new du woon sax chasse au kii mais c'était de balayer le terrain pour pour nekk fi yow kese donc Macky Sall ki dynamique boobu la nekkoon mais par contre ñii dañu nekk ci li nga xamante ni mooy logique c'est pas parce que nday Arame dénk nañ ko d'accord gis nañ kaat ay bien dugg na fii génn fii kërëb kërëb mais foog ñu jaaral yi fii ci yoon tamit mm. Ndeye Arame dénkoon nañ la période sangam ba période nàngam loolu sa dafa loolu du lu ñuy sax saaxee du lu ñuy foowee parce que nit ki nga war dem ba ne setal nan ko ci biñ ko audité dafa war a nekk lu leer nit ki nga dem ba ne tamit incriminé na nañ ko ci biñ ko audité dafa war a nekk lu leer moo tax il est bien de c'est-à-dire euh, sérieusement séparation des pouvoirs bi ñu ngi koy commencer sentir bàyyi ñi nga xamante ni ñooy les corps de contrôle et cetera et cetera def seen liggéey avec le temps qu'il faut. d'accord kenn bañ a intervenir kenn bañ di ko jël di ko utiliser. et il a bien communiqué ci lan dalalaat xelu sénégalais yi parce que am na ay wax yu fiy jóg di indi jiixi nit ñi naan way yaa waxoon deux mois yaa waxoon ña ña ña dafa def une réponse boo xamante ni j'ai beaucoup j'ai bien aimé. d'accord parce que. il a parlé de dundu gi dina wàññiku te loolu tout le monde en est conscient mais on ne veut pas que gouvernement bi ñëw à deux mois ñi ñi buñ fi toogoon tey buñ buñ xëyoon euh, par exemple nii nii nii nii nii ne wàññi nañ dundu gi sama xel dina tey parce que dama naan c'est juste une solution conjoncturelle c'est très facile tibb fale benn 35 milliards subventionné dundu gi mu wàññiku ñu yëg ko six mois sept mois huit mois un an yëf yi de non seulement dafay dafay doubler wu waat mais dañu nekk ci lu ñuy woowee une solution structurelle loo xamante ni bu xasee ba am day nekk luy continuer et nous nous préférons une solution structurelle que plutôt une solution conjoncturelle parce que li ñu muñ depuis les indépendances je pense que ni war nañu mën a taaxirlu muñaat ko bu dee sax benn un an deux ans ba nga xamante ni cette fois ci bés bu ñu ci yegg day nekk lu sérieux mais structurel mënul régler wu ci deux ans. non non dama ne non damay joxe exemple ah non damay joxe exemple merci beaucoup damay joxe exemple c'est-à-dire pour man li ma comprendre mooy ñun actuellement cette génération il faut qu'on s'oublie il faut que ñu xam ni Sénégal bi ñu nekk di def c'est le Sénégal de demain le Sénégal de nos enfants sawaay bu ñu naxante naa tànge Sénégal wala ñun ñëpp li tax ñuy rey suñu bopp mooy on veut que demain fii dix ans vingt ans sama doom bi bu màggee ba war a am trente ans ci kattanu yàlla ak mbaaxam wala vingt ans. du ñee français bi wala espagnol bi wala belge bi. bay tax du muy jël ay gaal di braver la mer di ci faatu. Sénégal boobu lañ nekk di construire. te il faut que. ñëpp dugal ci seen yoxo donc vraiment <laughs> beneen bi mooy que ni làmmiñ du lekk moroom mate ñoragul. Ousmane Sonko nga xamante ni de par ses sorties xam na sénégalais xam na ñoom seen mentalité ni ñuy politiquer. de parce que Sonko. Euh, bu bàyyi woon boppam saa yu gars yi génnee waxal ko mu kii <laughs> fàtte woon nañ ko ah mais il a compris que sénégalais da koy euh, wax daf daf ko soxla et puis lii respect la on doit communiquer avec son peuple on doit rassurer son peuple on doit rendre compte on doit wax nit ñi ne li ngeen ñu dénk fii lañ ci toll def état des lieux fii lañ ci toll donc vraiment félicitation monsieur le père waaw intention waa ba tey am naa benn point bu ma desee lu leen ñor mooy recouvrement. mais la am lu ngeen fàtte am na solo mais la journée bu premier bi. waay en fait ci fi ñu toll. dëkk bi tàng na. béton yi ci mbedd gi bëri na. gravats yi et tout les gens se plaignent chaque jour. ci li nga xamante ne ci la ñu jëm. ñu ngi wax set setal d'accord mais saxalum garab ak ñoom seen daf si am solo je ne sais pas si vous avez fait attention mais euh, P m comme premier ministre seen communication seen vidéo yi derrière c'est vert ci Sénégal bi nga xamante ne nii foofu la ñu bëgg a def le message aussi à prendre en compte côté boobu dañ ci war a bàyyi xel mooy dina ne. Hmm. bale d'accord mais saxal yi garab tamit. dafa am solo mais mais mais bale bi kenn la. le premier le premier. j'aurais bien aimé ñu def ko après tabaski. lu tax. Oh, parce que pour seetal après tabaski après tabaski nga leen wanee yoon bi nii nii ñu tàmbale. Mhm. commencé curé kan kan waaw xaaral curé curé curé caniveau yi nga xamante ne nii ñu ngi ah. jëm ci nawet. Mhm. mu ko mu tàmbalee set. Mhm. xanaa loolu ci dégg-dégg nit ñi waru ñoo dem di sottiwaat ay mbaq ak ñoom seen ci kanoo yi tabaski bi xarit Dakar nga lekk da nga fàtte. waaw non fépp kay ci seen xoolal lii laay wax verdure bi. oui à fait. Ousmane ci atmosphère bu similaire. Euh, jërëjëf Adam. Paasan yow ndax di nga génn bale. fii ngay toog di wax naan lii am na solo am na solo mais ndax. <laughs> jël bale rato nekk sa koñ sax. def comme tonton vert borom ah <laughs> quartier vert challenge génn bale. ba ba président jomaa di yor bale ba léegi man gisuma la foo waxee ay waxi nan bale nan Pa Assane <laughs> ah. Eh, ah génneel vidéo yi. Paasal euh, environnementaliste la. <laughs> loolu kañ la. <laughs> COP 21. Pa Moussa man man de Cheikh Omar bi xam naa ah, toujours vert le fond. oui. il est toujours vert eh, ah oui toujours vert. dara la message la. da da loo xam ni. Hmm. léeg-léeg léeg-léeg le fond est toujours vert garab yu ñu saxal. léeg-léeg léeg-léeg li waa ji doon wax. ni léeg-léeg léeg nu woote di aw fekk nañ la sax depuis des années on dit Sénégal benn kër benn garab depuis des années et kilifa ont compris waa Touba ñoo ngi si si sëñ bi jour bi élection bi amee Sénégal dafa xaw a frais waaw ah. dafa taw am lu wàcc sax hmm? am na ndox mu wàcc waaw waaw démb dafa am benn kilifa bu mag dafa am dafa am benn kilifa bu mag moo woon benn image boo xam ni loolu dinaa la ko woon après hmm. dafa am fu turu yàlla feeñ ci palais de la république bu ko waxee nag ñenn ñi daal ne